asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit ji mbokki taalibe yi man la Assane Diouf jëwriñ jàngkatu xasida maa ngi leen nuyu di leen siyaare di wax jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou a ah, ñu ngi fii ci Touba Maé bu ko Serigne Ousseynou Kane borom xalima gi moom Serigne Saliou Mbacké tey jii ñu xëy ci bis bi nga xamante ne bi sëñ Touba moo ko wataleen boppam sëñ Touba moo ko wataleen boppam ngir bisu mbégte la sëñ Touba moo noonu ñëw leen sant la ma ci yàlla sama borom ñu nekk fii ci Touba Maé bu ko Serigne Ousseynou Kane tey jii nag ñu xëy. gis ngeen bernde yi moom lañ xëyee tey jii ci bisu mbégte bi bis bi nga xam ne sëñ tubaa def ne ah, ñoo leen sant la ma ci yàlla sama boroom bis bi nag ku xam màggal tubaa xam ko ci bernde yi sëñ Touba ne la dale ci ginaar ba ci gileem xeebu ma ginaar yeewu ma gileem tey jii nag sëriñ kan Kane ànd ak taalibe xëy ci suba teel gi ak gan yu tedd gan yu mag fu nekk ci réew mi doomu aadama bàyyeekoo na ñëw fii ci Touba Mbaye bu ko seenu Ousseynou dal fi tey jii sëñ bi tey xëy ji ci bernde yi mu berndeel leen ko pour ay ndekki lii ngeen gis ni ay ndekki la añ yaa ngi ñëw reer yaa ngi ñëw fii ci Touba Maay bi lii nag liggéey bi ah, sëñ bi da ko fab te ko ci loxol daayira soxna Faat Jaxate bu Touba Asalaam Grand Médine seen jëwriñ sëñ mu Modou Ndiaye jiite liggéey bi gis ngeen soxna yi ñoom ñoo taxawul liggéey bi saytu ko ah, bernde yu ba mucc ci ay ba mel ni mu war a mel Euh, ñu ñëw di taaj ko ci kanam sëriñ bi euh, ak sëriñ bi ak gani sëriñ bi ñu xewloo ko euh, di waajal bis bi nag eh, ngir bëgg sant sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci kanam tuuti dina génn ci baas bi ci yoor-yoor bi nga xam ne la sëriñ Touba demoon ci ci tukki ba màggal gi nga xam ne dina jàng eh, ay kaamil alxuraan yu limu ak xasida du xasida ak kuréelu xasaayit ak jàngat yi kon nag sëñ bi noonu la waajale bis bi tey jii ci fii ci Touba Mawahibou di wax jërëjëf ci Serigne Saliou di ñaanal Serigne Ousseynou Kane borom xalima gi yàlla na fi yàgg te wér ci barke Serigne Saliou Mbacke axiru daxawaana alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf